ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم allahuma allimna maa yanfauna wanfana bima allamtana wa zidna ilma mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel ci koor gi di ñaan yàlla mu nangul ñu nangul leen bu ñu dellusiwaatee ci jataayu koor yi ñi am ngoonu koor bu jot ci dégg diine ñuy waxtaanee ay bunt ci téere bi di iqaasatu lahfaan min makaayidi sheytaan wala min masaayidi sheytaan bu alimaam ibn alqayim aljawziya rahimahullah fii dafay wax ci li nga xamante ne bi moom lañ gis ci ay bàkkaar yoo xam ne ci alquran dañuy fekk suñu borom subhanahu wa taala di ko tuddee sobe bàkkaar yépp sobe la setu xol ak sell xol li muy tekki mooy sell set ci wedd yàlla ci bokkaale ci li nga xamante ni mooy ay bàkkaar loolu lañ ci nam waaye dafa am yoo xam ne d'une manière particulière dañuy fekk alquran di ko melal melokaanu sobe ndax impact bu rëy boo xam ne bàkkaar yooyu am nañ ko ci li nga xamante ni mooy xolu jaam bi mu dal di wax ne li nga xamante ni mooy bokkaale yaa ayyuha alladina amanu innama almushrikuuna najsun fala yaqrabu almasjid alxaraama bada amihim hada yàlla doon na wax ñi gëm yàlla ne leen yéen ñi gëm yàlla xam leen ne ñi nga xamante ni ñuy bokkaalekat yi dañoo sobewu ndax bàkkaaru bokkaale ya ñuy def ci di màggal ak a jaamu keneen ku dul yàlla jël àq yàlla yeeg cëri yàlla yi di ko jox keneen ku dul suñu borom subhanahu wa loolu dafa jur ak sobewu ci ñoom donte sax ña ay yére yu set donte sax ña nga sangu ba set di toilettoo ko parfum woo ko defaru xam leen ne dañoo sobewu mooy sobeek biir ki ñu doon wax gi nga xamante ne mooy nekk ci xolu nit ki mu waxaat tamit ne ba léegi dañuy fekk lu mel ne bàkkaaru njaaloo ak bàkkaaru ngóor jigéen suñu borom subhanahu wa taala di ko tuddee li nga xamante ne bi ba mooy sobe mu ci loolu la waxee wa wa luutan aataynaahu xukman wa ilma wa najjaynaahu min alqaryati allati kaanat taamalu alxabaais innahu kaana qawma sawmin fasiqin yàlla subhaanahu wa taala dafa wax ci nuut ne jox nañ ko xam-xam ñaari xeeti xam-xam atay naa xukman wa ilman benn xam-xam bi mooy xam-xam boo xam ne dina may nit ki mu mën a àtte ci diggante nit ñi muy ilmul qada beneen bàkkaar bi ci des mooy bàkkaar yi nga xamante ni moo aju ci njaaloo ak ci ngóor jigéen nasalullah salaamata al aafiya ñaari bàkkaar yooyu tamit dañuy fekk suñu borom subhaanahu wa di leen mel li nga xamante ne bi moom mooy sobe ndax bi muy wax ci yonent yàlla luut ak xeetam daf leen melal sobe googu mu ne wa luutan aataynaahu xukman wa ilman wa najjaynaahu min alqaryati allati kaanat taamalu alxabaais innahu kaanu qawma sawin fasiqin mu ne luut yàlla subhanahu wa taala moo ko joxoon xam-xam ci xam-xam boobu muy àtte ci diggante nit ñi waaye tamit yàlla subhanahu wa taala daal di koy musal ci ñooña nga xamante ni muy dëkk boobu nga xamante ni ñoom la melal ne dañ daan def ay sobe dañ daan def ay sobe kaana taamalul xabaais dañ daan def ay sobe sobe yooyu ñu doon def mooy xeetu ñaawteef yooyu ñu doon def te tey ci jamono seytaane ñëw di ko rafetalal nit ñi li yàlla wax ne wa zayyana lahum sheytaanu amalahum mu wax ne afaman zuyina lahu suu amalihi fa raahu xasana yàlla ne ndax gisuloo koo xamante ni seytaane da ko rafetalal jëfam ndax gisuloo koo xamante ni dañ ko rafetalal li ñaaw ci ay jëfam mu jàpp lu rafet la loolu mooy xeetu réer gi gën a ci réer yi mooy nit ki nekk ci ñaawteef yi nga xam ne bases yi gën a suufe yoo xam ne doomu aadama war na koo seexlu waaye moom mu yaakaar ne li mu nekk ni lu rafet la li mu nekk ni lu baax la moom mooy li ñuy dund tey ci jamono ndax lu mel ne dem ba soppi doomu aadama ci anam bi ko yàlla sàkkee woon loo xamante ne bi bàyyi may sax seexlu nañ ko jël ñaari doomu aadama yoo xamante ne waruñoo ànd ñu jël fexe ba gëmloo nit ñu ne loolu mën a nekk la liberté la bu ko nit ki bëggee mën na koo def dem ba sax léegi dañ ciy xërtal nit ñi ak di leen ci puus ci film yi ñuy joué propagande bi ñuy def guddi ak bëccëg seen publicité yi fu ñu toll site de rencontre sax léegi bu ñu koy publicité jigéen ak jigéen la ñuy jël wane leen ñuy fóonante wala ñu jël góor ak góor styliste yi nga xamante ni bi ñoom ñoo nekk ci monde mode ak wàllu haute couture ak yi ci jëm nga xam ne bokk nañ ci nit ñi gën a yées ci doomu aadama yi seen publicité yépp daanaka ay affaire góor jigéen moo nekkaale ci biir cinéma bi léegi boo gisee long métrage yi nga xamante ni moom la ñuy def Netflix ak yi ci jëm daanaka lépp propagande affaire LGBT la affaire góor jigéen jël seen drapeau euh, arc en boobu nga xamante ni mooy rainbow bi ñuy jël noonu fu ñu toll ñu koy jël di ko dugal ci biir moo xam dessin animé yi la wala film yi la wala di ko masquer di ko dugal ci ay mbir moo xam ay logo yenn compagnie yenn entreprise yu mag yi la wala yi nit ñi di jànkoonte lépp pour bëgg. marqué seen i li nga xamante ni bi moom mooy subconscient mooy luy nekk ci sa xel des ci sa xel loo xam ni dangay dem ba miin ko te doo ci sax bàyyi xel lépp rek pour miinal nit ñi lu bon ak pour dégrader li nga xamante ni moom mooy valeur humaine yi nga xam ne yi nekkoon ci nit ñi ci mbaax ñu dégrader ko yàqu ko bu ko defee rabe sa doomu aadama wàcce ko suufeel ko ba def ci moom ak mbàyyi ma doomu aadama boobu nga xamante ni noonu lay mel doomu aadama la boo xam ne bakkanam da koy jiital bakkanam da koy noot araayta man ittaxada ilaahahu hawaahu afa anta takuna alayhi wakila kooku nga xamante ni bakkanam da koo not jiital ko kooku ku neex a yilif ku neex a dominer ku neex a not ku neex a manipuler comme ni ñuy manipuler bàyyi ma noonu lay mel ñooñu nag lañ bëgg léegi ñu nekk ci kaw suuf bu ko defee ñu jël leen di leen def loolu leen neex nasalullah salaamata al afia loolu la suñu borom bañ ci ñun moo tax xeetu bàkkaar ak ñaawte fi mel noonu yàlla dañu ko tere nga gis ne suñu borom subhanahu wa taala kon loolu mi ngi koy tuddee li nga xamante ne bi moom mooy euh, xabi al xubs mooy sobe sobe la ko suñu borom tuddee kon képp kenn ku nekk war na seexlu lu mel noonu moo tax nga gis ñu waxoon ne axriju ala luutin min qaryatikum innahum unaasun yatataharuun moo tax doon nañ wax ñoom naan waa luut day luut ak njabootam ba mu des soxnaam dañuy jéem a laab laablu dañuy set setlu ci yi ñaawteef yi ngeen di def mooy lu bon li ñuy def ñoom d'accord nañ ne lu bon la lu salte la ba tax ñuy melal Luut naan dafay jéem a laab ak dafay jéem a set ci na ngeen leen génn ci seen dëkk na ngeen leen génn seen dëkk axriju ala luutin min qaryatikum innahum unaasun yatataharun loolu al imaam ibnul qayyim rahimahullah nee na lu ñu nangu la ñoom kon léegi reconnaître nañ ne kon Luut ndakate dafa nekk koo xamante ni kuy laabal boppam la kuy purifier boppam la ci set set wicc ci ñoom seen salte yooyu nga xamante ni ñu ngi koy def mooy da ngay gis ne ñoom nga xamante ne ñooy nekk ci ñaawteef yooyu bu ñu gisee nit ku ci nekkul day mel ne da di déranger da leen di agacer voilà da leen di estomaquer nga gis ne du mën a supporter nit koo xam ni sell dafa nekk ci moom le seul fait ñu lay xool wala ñu déglu wala ñu lay gis duñ ko mën ndax benn salte ak benn ñaaw ñaawteef yi bu ci nit ki nekkee dafa dem ba bu gisee nit ku sell ku set dafa mel ne da koy gêner da koy déranger loolu na ko ñu bari bàyyi xel ñu seetlu ko am na ñenn nit ñoo xam ne mënuñu supporter nit kuy sell di sellal di jaamu yàlla di julli di wóor di jàng alquran dafa mel dafa am benn leer guy nekk ci moom boo xam ne da leen di déranger bëgguñ sax di di fréquenter seeni seeni milieu wala ñu toog ak ñoom di wax wala ñu lay xool wala ñu lay déglu mënuñu ko supporter loolu yépp li ko waral mooy nit ki bu nekkee ci lëndëm lëndëm lëndëm lëndëm bu gisee torche wala mu gis lumière dafay daal di daw def nii ndax da koy mel ne da koy agressé loolu lay mel parce que doo du ko mën a supporter ndax lëndam bi ni mu ci yàggee loolu moom mooy jur xeetu attitude ak comportement yu mel noonu mu gis na tamit suñu borom subhanahu wa taala dafa waxoon ci jullit yu jigéen ne alxabisaatu lil xabisiin wal xabisuuna lil xabisaat yàlla subhanahu wa taala li mu waxoon mooy njaalookat yu jigéen yi ñi leen fréquenté di nekk ak ñoom mooy njaalookat yu góor yi njaalookat yu góor yi tamit naka noonu njaalookat yu jigéen yi mu jëfandikoo baatu xabiis foofu jëfandikoo baatu xabiisiin ba ak xabiisaat yàlla subhaanahu wa taala melal leen ne dañoo sobewu ndax bàkkaar yi njaaloo yooyu nga xamante ne ñu ngi koy def mu nekk bàkkaar yu bon yoo xamante ne tamit léegi ci jamono yombalal nañ ko nit ñi surtout ndaw ñi ba ñu tàmm ko dem ba jàpp ne daanaka léegi lu normal la ñu nekk di njaaloo ak di def yu bon yooyu fekk xamuñu li muy yàq ci ñoom di leen tàmbal ak di yàq seeni jikko di leen tàmmal xeeti ñaawteef yoo xamante ne bu soree ci ñoom pour ñu mën a tënku ci njub tënku ci lu baax dina jafe trop ndax bànneex yooyu nga xamante ni moom lay yar ci ñoom mooy bànneexu mbàyyi ma googu ñu doon wax te dafay nekk luy gën di yaatu di gën di law ci xol bi bu nit ki tàmbalee ci ñaawteef boobu tamit yaakaar ne ca lay yem du ca yem dafay nekk loo xamante ne day propagé wu ci bi daal di jeexital ci yeneen jikko yi jeexital ci yeneen yi ci des yépp ba nga xamante nit ki mujj gi dafay mujj nekk nit ku sànku nit ku yàqu ci wàllu diineem yàlla nañ yàlla subhanahu wa taala sàmm defal ñu tawfiq hada wallahu aalam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الكتاب